actu du jour lu ciy gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jotoon am lu tolloo ko juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo wër tey am na kenn ku si ñàkkat bakkanam mbirum accident bu métti ba amoon àjjuma bële ñu génn si diggante ab allo Dakar ak rek benn camion malien te juróomi doomu aadama ya ne woon ci taxi ba ñàkk si seen bakkan dinañu si addu ak rek lu si ministre bii di Oumar Youm jël rek comme décision ay saaku ni mel nag tax rek responsable ya fa nekk daal di jubali fa mbaxane doone benn gannaaw ba ñu nemmeekoo ni eh, am na rek ay saaku aliment waki farine ya nga xamante ne ni dañu ko fee randal lépp yemoo ko valeur juróom-ñeenti fukki million si noon noonu nag ba ñu defee seen enquête ana rek kañ lañu teg si loxo ak ka ko doon randal fa mu ko doon jëmee eh, ci bu ñuy yaatal la leen koy jottali. faatati nañu ab doomu Sénégal ca réewum France samedi bële ñu génn bile yoon nag ku ñu faat mi ngi wuyoo ci turub Alassane Kanté ay atam si ñaar fukk ak ñaar la toll. Ahmadou Bamba di doomu Sénégal bu nekk Canada te faatoon soxnaam si woon ci atub 2018 gannaaw ba mu ko bojjee paaka lu toll ko juróom-ñaar fukk ak benn yoon moom moomee daa dinay jànnoog rek attekat bi ngir rek tontu ci la mu def di faat bi gëndaw mu nekkoon soxnaam moom nag la fa tukkee woowee ak rek la ñu teg ci ndoddam danañu leen koo xamal ah, ci biir yaatal yi dañu àddu rek ci nakkar ak tiis bi nga xamante ne ni dal na ci communauté Layeen gi rawatina xalifa général ba ak rek ñetti doomam ah, fësal nañu si ab bataaxal di leen jàll ah, seen ñetti doom yooyee présidentielu Guinée bi danañu si wax ak rek ka nga xamante ne ni moom moo jël raw gàddu gi waaye itam li nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko fa di jàppante ci rek fekk waxtu wa nga xamante ne nii ñu ngi doon wëññi lii di voix yi mbirum ñaar fukk ak juróomi borom ñaari tur ya ñu teg loxo ca Mermoz Sacré-Cœur tamit dañu si àddu kenn ne nii dafa daw pièce ya mu fa bàyyi waaye itam ñoom ñooñee la ñu leen fekkee ak rek seeni at si ñaata la toll danañ leen koo xamal ci bu ñuy yaatal lay doon gannaaw ba Mbathio marié week kii di bay Niass njaay mu ko may may bu duun bile ba noppi ñu gis rek ne ay image yu Mbathio yu ñaaw yooyee dañoo nekk rek di koy fësalaat ci lii di réseaux yooyu maanaam daal di sulliwaat la nga xamante ne nii da doon nelaw bu yàgg lool ngir rek fësalaat ko ki nga xamante ne nii nag moo di fu Malade yëkkati na si ay kàddu la mu ci xamle danañ leen ko jottali laata ñu si toftal tàggat yaram ak mbirum rek mbër mi di Gris Bordeaux ak promoteur làmb jile di Gaston Mbengue li moo ciy gën a fës yaatal wi ginnaaw bàkk bi lay doon. bàkk ba jib na nuyu nañ leen jox leen seen wàccuwaay yéen ñu ñuy lu si Dakar Buzz di taataan seen i ay xibaar mbas mi la ñu koy dooree si suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ministère bu ngànk wàllum wér gu yaram tey juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-benn la ñu testé si ñoom ñoo ñee nag ñaar fukk ak ñaar ñoo ca positif amul kenn ka nga xamante ne ni dañu ko wàll fukk ak juróom-ñett yëpp ay cas importé lañu juróom-ñeent yi di ay cas communautaire juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo wër tey juróom-benn sonn nañu rekk ba ñu nga sauvetage am na kenn ka nga xamante ne ni ñàkkat na bakkanam ci mbas mi nga xam ne ba mu ñu ganisee ba jamono ji may waxee ak yéen fukki junne ak juróom ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom doomu aadama ñoo ko fi jot a am ñoo ñee nag fukki junne ak ñett ak téeméer ak ñaar fukk ak ñaar wër nañ si ñetti téeméer ak ñaar fukk ñàkk si seen bakkan fi mu ne nii may waxee ak yéen junne ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom-benni doomi aadama ñoo tëdd ci laalu hôpitaux yi yore rek bi feebar feebar di coronavirus bi ñu leen di traité askan ba dëkkee ca quartier Darou de 2 nekkee ca Tivaouane Pël ne la watuñu yàndoor lu tolloog naka ñaar téeméer rek ñeent fukk ak juróomi kër la ñu fa rek bëgg a toj ngir benn milliardaire bu ñuy wax Ablaye Dia si noonee nag askan waaye méttit lu li tey naan rek waaju ñëw jógee ko ca seen kër yooyu ne sax xanaa rek bu ñu ñëwee ñu dëjjati waale leen ak seen caterpillar yooyu ñu fa fas yéenee indi ndaxte ñoom ñoo ñëwee rek waaju ñoo puus waaju ñoo paas ñu xamle ko ministre des infrastructures des transports Euh, terrestre et du désenclavement daa dinay rek diggéen euh, ñi dina teg ay daan chauffeur Toyota korola bu defoon rek accident bu métti boobu àjjuma ba la ñu génne ci autoroute Gambul Congo euh, juróomi doomu aadama ñàkk ca seen bakkan jëwrin bi nag di Omar Youm daa dinay rek dikkaat si lu sabab accident boobee si ab communiqué bu mu fësal moom nag nee na rek dawalkat Allo Dakar bu yeboon juróomi doomu aadama si sensu Gandiaye Kaolack moo dal wàcc yoonam ba tax mu mbëkkante bi ba loolu weesoo nag ministre bi ne oto bi mi ngi woon rek ci état bu baax ak ab visite technique bu war a dem ba weeru mars atum 2021 ak assurance bu valable ba ñaar fukki fan ak ñett si weeru novembre atum 2020 bi ñu nekk waaye nag daal dinay leeral ni oto boobee accidenté amul licence de transport de passager te rek chauffeur bi it permettre ñu ko mu yóbbu ay passager si noonu nag ministre bi di ñaawlu tey méttit lu rek li tey naan rek dinañu lu si yoon waxtaane si lu ñeel rek daan yu ñu war a teg euh, chauffeur boobee nga xamante ne ni mën nañu see annuler rek lii di permis de conduire am waaye itam sans compter sanction pénale yu nga xamante ne ni législation bi euh, daal dina koy prévoir ba loolu weesoo nag ministre bi fàttali ne rek mode de transport irrégulier boobe dañu ko rek euh, tere si suñu réew mi di Sénégal ba noppi rek muy woo ñëpp rek ngir ñu moytandeku di jël yooyu lay oto ngir rek lu ñeel seen kaaraange. ñaari atub kaso la tribunal des flagrants délits bu Diourbel teg rek ci ndodd Bassirou Ndiaye ak kii di Saliou Diakhaté ñoom nag ñu ngi leen di toppee association de malfaiteurs ak mise en circulation de faux billets ñoom ñaar ñooñee nag dañoo demoon ndox te ndoxteelu weeru septembre bi si benn boutique transfert d'argent ca Touba ak rek benn million yoo xamante ne nii lépp ay faux la si noonee nag la ñu leen démasqué borom boutique bi daal di leen di maîtriser si ndimbalu ba vigilia ba ñu taxawee nag ci kanamu Saliou Diakhaté ak naataangam boobee dañoo xamle rek ni xamuñu woon ne euh, xaalis boobee ñu yoroon ay faux la waaye teewul rek ñu teg ci seen ndodd ñaari atu ba kaso jàppante bu métti moo am ni kii di beer ca marché ndindi bu Diourbel ci diggante rek ñii di takk der yeeg askan ba doon ñaxtu ci côté gendarme yi sax kenn daal dina say jëlee ay gaañu gaañu lu waral nag seen jàppante boobee du leen rek lu dul ay opération de sécurisation yu takk der yi lancé si lu ñeel rek ñàkk takk ba masque yi jot nañoo sax teg loxo lim gu takk lool si ay doomu aadama ngir rek ñàkk takk lii di masque yi nga xamante ne rek moo waral lool ñu doon ñaxtu ba di si jàppante ak ña nga xam xamante ne nii añoo di takk der yi. leneen ay saaku aliment la ñu daal di détourné ca NMA Sandeuse aliment yooyee nag ñu ngi ko xayma si juróom-ñeenti fukki millions si suñuy koppar responsable yu nekk foofee nag ca NMA ñoo daal di rek nemmeeku ne dañuy fay sàcc ay saaku aliment depuis un certain temps ba tax rek ñu daal di saisir section de recherche de la gendarmerie bu Colobane ak ab plainte bu ñu fa déposé ñoom nag ba ñu defee seen i ay saytu la ñu rek daal di jubali ca IFAL di comptable NMA ndax ba ñu defee seen enquête la ñu gis ne rek Ifal moomee daa profité si lu mu nekk ci entreprise boobee ab comptable di détourner ay saaku aliment ak i saaku farine ca Tataguine nekkee ca région bu Fatick la ko doon jëmee da gannaaw rek ba mu fa ubbilee waajuram bu jigéen ab magasin bu rëy lool muy jaay saaku aliment ak farine yamu doon sàcc di ko fay rawalee ngir passé nag ay commande am Ifal dafa sollicité woon rek ay service xaritam bu ñuy wax Pefal di ab rek yëpp si wàllum jënd ak njaay euh, sàkku yañu jot nag randal yëpp ñu ko xayma si rek lu toll ko juróom-ñeenti fukki million si suñuy koppar ba gendarme yi nag ñëwee ngi jël si ko ifal dafa dal di rek daw ba tax rek ñu dal di teg loxo waajuram bu jigéen ak xaritam boobee di pee gannaaw ba ñu tegee loxo Issa Gueye mu doon bu booboo ab commandant de l'armée en service ca camp Dial bu Dakar daal dina ñuy rek teg loxo keneen ngir bu booboo loo doonul kookee nag du kenn rek du dul dee fay di ab boulanger moom nag ñetti weeru kaso ferme la ñu teg si ndoddam bu ñu sukkandikoo ci la soleil bu biral xibaar wi dee fay jot naa escroquer rek ku ñuy wax P Diop di ab chauffeur busu horaire njëg million 600 la ko naxee gannaaw rek mu dimbalee ko ba mu am droit di gaare ca boo maraîcher waaye yomul ci moom muumee ndaxte rek des fay escroqué na tamit ku ñuy wax PS Diouf mu mu waxoon rek nii da koy dugal ci fonction publique bi comme chauffeur moom moomee nag 26 000 francs CFA la ko lekkal gannaaw ba ma ko ko laajee woon ngir ay frais de dossier. ma junjoon leen ko ci ndoxteel li daal dinañuy faataat ab doomu Sénégal ca réew mu France ni ki sam di la ñu génn moom mu mi nag di wuyoo si turu ba Alassane Kanté ay atam toll si ñaar fukk ak ñaar benn ndaw bu sokkeekoo ca Maghreb moo ko faat ak bal ba mu ko tiiree ca bopp gannaaw seen soirée chicha ba ñu doon def ña fekkee nag mbir mi dañoo màndi woon lool ba rek kenn si ñoom mënul woon expliquer lu sabab boobu li crime Alassane Kanté nag France la juddoo waaye ay waajuram Tambacounda sokkeekoo mbir mi nag ubbi nañu ci enquête Ahmadou Bamba Ndiaye di doomu Sénégal bu nekk ca Canada te faatoon soxnaam si woon ca atub 2018 ak rek juróom-ñaar fukk ak benn yoon yamu ko jam paaka daal dinay taxaw rek ci kanamu attekat yi ba noppi ngir lu mu faat biige ndaw moomee nekkoon soxnaam si anam bu ñaaw loola gannaaw rek ba biige gisee woon ni seen doom yi dañu leen war a yare foofee ca Canada Bamba ne rek dañu ñibbi si Sénégal loolee moo leen jotale woon attekat bi nag à perpétuité gratuité la ko rek dal di tëj maanaam daal ba faw ci yemu ca nag ndaxte rek daal dinay xamle tamit ne du ñu autoriser kii di euh, Bamba ngir rek mu sàkku libération conditionnelle fokk rek tëddul lu mu néew néew fukki at ak ñeent gannaaw ba mu mënulee woon supporter lu ndaw sa mu doon bëgganteel di sëy ak keneen ah El Diop daa daal di rek yónnee ay photo yu graaw soxna soosé mu doon bëgganteel nga xamante ne ni ci weeru juin bi la marié borom këram ci noonee nag la mu ca doon séntu amul ndaxte rek borom këru ndaw si daa wëlbateeku daal di koy porter plainte ba tax na rek gendarmerie bu Sagata nekkee si departement bu Kébémer région bu Louga teg loxo rek moom moomee waa ju envoyé photo yu ñaaw yooyu diffusion d'images obscènes portant atteinte aux bonnes mœurs. ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz nakar ak tristesse bu rëy la ñu dencee démb rekk ñetti doomu xalif généralu Laayeen yi mbooloo mu takk lool sax ñoo leen gunge woon ca seen kër gu mujj ga ak ay zigte ci noonee nag njiitu réew mi Macky Sall daal dinay jàll rek Laayeen yi rawatina xalif général ba seen ñetti doom yooyee nga xamante ne ni ñoo wàññeeku si ab bataaxal nag ba mu fësal la njiitu réew mi xam xamle rek ni émotion dëgg la yëggee génn àdduna Malick Thiaw ay seen Thiaw ak. kii di Khady Thiaw Laye di ay doomu xalifa général des Layènes El Hadji Abdoulaye Thiaw ci noonu nag Macky Sall ne mi ngi leen di jàll xalifa bi ak Layène yi yëpp si turu ba nation bi Ousmane Sonko tamit desul gannaaw benn yoon gannaaw bu mu fësalee moom it ab bataaxal ci Facebook di jàll xalif bi ak Layène yi yëpp si tiis bu dal seen kaw tey ñaanal rekk ña nga xamante ne nii ñoo làkku ma àddu ci présidentielu Guinée bi njiital union des forces démocratiques de la Guinée di Cellou Dalein Diallo moo dal di rek jël raw gàddu ga ca premier tour ba moom sax si boppam moo biral ndamam loole ci élection présidentielle bi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru octobre Cellou sax xamle woon na ni rek mooy jël raw gàddu gi te ak écart bu rëy la wax xamle woon ni rek la leen di roppee laata nag ñu doon pare rek di wëñ wëññi ba ña nga xamante ne nii ñoo wote la ñu dal di nemmeeku rek ay jàppante ci capitale guinéenne bi gannaaw rek Alain Diallo revendiqué woon victoire am bi la ko dalee woon ca QG ba ba ca rek kër Cellou Dalein Diallo lépp rek ay saxaaru lacrymogène la woon laata rek ñu fësal seen mbégte ci seen victoire bi nga xamante ne ni daal dinañ koy fësaloon ci diir bu gaaw loola. aywa ñu àddu jëmale ci mbirum ñaar fukk ak juróomi borom ñaari tur ñu teg loxo ca Mermoz Sacré-Cœur ñoom nag doon waajal fête ab anniversaire waaye itam ab mariage ci diggante borom lubrifiant euh, juróom fukki préservatif lu jege fukki test sida ay lingette ay bin bin savon maquillage faux cils ak rek yeneen ya ñuy jëfandikoo ak tamit ñaari bàgg fiançailles couple homosexuel ñaar fukk ak juróom ñaar ñooñee nag doon def yu bon yooyee seeni at ñu ngi toll ci diggante rek fukk ak juróom ñaar fukk ak juróom ñett ñaar fukk ak rek fanweer bu bëree ba bëri ñu ci ëpp nag ci banlieue bi la ñu seen image mariage bi ngeen di gis noonu rek ñu jotoon def seeni ay décor ba noppi yi nee nañu nag kenn ki ñu yaakaar ne sax mooy seen boss moom moom dafa dal di rek daw kenn xamul fa mu féetee waaye nag dafa bay pièce d'identité am ak rek yeneen yi bagage am ñu gis ne moom moomee sax mooy seen boss sekk la sant waaye itam njort nañu sax ne ab médecin la ma jël roplaan dem ba Las Vegas àddu rek ci mbirum Sanekh ak Pape Mbaye moom nag Sanekh bi la yoon daa dal di rek minimiser kii di Pape Mbaye ca Las Vegas boobee nga xamante ne ni moo gétt moo sax ñu leen doon jox rek ay raaya li ni mel nag tax rek ñu njort ni xanaa coow lu judd woon ca digganteem ak Pape Mbaye si ba ñu dajewee foofee moo waral rek mu doxalee bile yoon ni ni mel gannaaw ba Mbathio Ndiaye marié ak Baye Niass Ndiaye ba noppi Fou Malade daal dinay àddu ci photo Mbathio yu yàgg ya nga xamante ne nii rek ñenn ñi dañoo nekk di ko fësalaat gannaaw ba mu amee borom kër Fou Malade nag nee na mbëggeel bi moo si ëpp solo laata muy naan moom moom mënu la comprendre lu tax rek ñuy nekk di biral saa su ne naan diw may nañ ko li wala laa dalee ko ci sumbulu ba ci mbaaco ba loolu weesoo fu malaat ne nag ñuy laata photo mbaaco yooyee est-ce que borom këru mbaaco rek njëkku leen a jot information yi laata muy nan nag mën naa ni rek lu am solo moo ko xiir sax ci mbaaco ba moom moomee mu jël ko soxna ba loolu weesoo nag kii di fu malaat nag ne rek ña nga xamante ne ni ñooy jël photo mbaaco yu yàgg yooyee di koy fësalaat mbon kese moo leen si dugal te yàlla bëggul kuy toroxal nit mu yokk ko ci ay kàdduum ñu gëj leen gis lool ci réseaux sociaux yi ñoom couple bi di Eva di actrice ca série boobee di Pod Marichou ak kii di Pi ñoom nag daal di nañuy fësal rek seeni ay image bi la yoon ci réseaux sociaux yi di yooyu ngeen di gis ñu nemmeeku rek ne complicité ak mbëggeel bu am seen diggante dafay gën di yaatu comme nu ngeen leen di gisee noonu. tàggat yaram laa koy tëjee ak mbirum mbër mi di Gris Bordeaux ak promoteuru làmb jile di Gaston Mbengue mi nga xamante ne nii gisul rek lu dul fukki millions ya nga xamante ne nii joxoon na ko. Gris Bordeaux avance ngir combat bam beeg Balla Gaye 2 nga xamante ne ni dafa mujjee rek laaj Gaston nag bind rek ab plainte la daal di def jëmale ko ci kii di Gris Bordeaux ngir rupture abusive de contrat waaye itam ngir abus de confiance mbëru Fass boobe sax di Gris Bordeaux tey si talaata ji ba fukki waxtu jotee si suba la ko daal di convoqué ca brigade de recherche bu gendarmerie bu Faidherbe